mbokk yi làmb yëngu na 2STV dina yëngal làmb 2STV yi tàmbaliwaat naa yëngal làmb mbokk yi samedi jàkkaarloo bu mësta am dina am ci 2STV yi jàkkaarloo bu mësta xew dina xew ci 2STV yi ndax xam ngeen triplex triplex mooy ma nekk fii Siteu nekk këram Papa Sow nekk këram mbokk yi ñu jàkkaarloo ñett di waxtaan Siteu wax jox Papa Sow Papa Sow wax delloo Siteu ñu wax delloo ma maw jàkkaarloo ak Pape Abdou Fall ak parrain bi mbokk yi ci 2STV lay xewee samedi bii bu ITV 2STV Lonko ànd ak Pape lamb ji sag yi yëngu na